di la siyaare di la sukkal di la raamal di la gën a bëgg saa su ne saa su ne yaa ngi suñu xol fees ko del tax nga ba jàmbatuñu dara amuñu lenn lu nga xam ne ñu koy gis feneen di ko ñee keneen moo ñuy gis ñu ñëw waaye ñun ñeewuñu kenn sunu xol sedd na ci yow sunu xol sedd na ci yow suñu xol sedd na ci yow ñëw nañu nag tey jii fas yéene sanante gaw ay kàddu ay kàddu cant ay kàddu ngërëm ay kàddu jébbal gu bees tàq ay kàddu jaayante tey day li jiitu ci suñu wax mooy mbooloo mi yëpp sëñ Moussa Mbacke Mouhamed moo nekk seen biir xol xol ko ci nekk li ciy tëf tëfi guddi bëccëg suba ngoon yow mii la kon mbooloo mi ay jullit ñoo fi ne jullit nag armam maanaam ngànnaayam weesuwul ñaan ñaan moom suñu borom da koo fonk lokk ci jullit lool ci jullit ginnaaw suñu xol bii sëñ Moussa Mbacke Mouhamed moo ci ne nanu maase ñun ñëpp ñaanal ko mu yàgg fi lool tànd ñun ñëpp nañ ko wax sëñ Moussa Mbacke Mohamed nañ ko wax suñu làmmiñ tudd ko tey bisum ñaan la sëñ Moussa Mbacke Mohamed yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér jërë ngeen jëf sëñ bi de wax dëgg yàlla bu fekkoon mën nga ñu bett dañaan bett te nga ñu waaye lu ñu gisul ci yow rek ñu ngi séntu leneen lu ñu gis xam nañ ne ngaa jox jox ñu waaye wóor nañu ñun lu nu bugg li fekk ñu ngi sa liggéey bii dañ koy awee nu koy sunu jot dañ koy amee nu kawee sunu jot la ñuy amee ñun ñëpp suñu xool sedd na léegi waa njaareem def nañu nañ daan def ganale nañ ñu toon nañ ñu sëñ Baaraam mu nga fa woon ca Salba président section Thiès mu nga fa woon président section Dakar mu nga fa woon président section Kaolack mu nga fa woon ñeenti président section ñu nga fa ak ñaari représentant sëñ Moussa Mbacke Mohamed muy bu njaareem ak bu ak bu bu kawlax ànd nañu ak waa waa cees Ibra Sey ak li wër Thiès waa Tivaouane ñoo ñëpp ñëw nañ ci ñëw nañ ci ci convoi bi convoi bi dafa war nga ñu daaw dimbali ñu woon ne daaw ñu am convoi boo xamante ni ñun jàppoon nañ ni convoi mënta ëpp booba waaye ni waañ mel ci kër convoi ren bii bu daaw ba noonu la mel ci moom lépp ci seen dimbal ndax yow de ku lay liggéeyal lu mu bëgg li ñuy wax rek man man du ma wax sëñ Mbaye Jaxate dama wax keneen man kii su ma ko xoolee sama xol day fees tey laa ko xool mu wóor ma ni mag ñu doon wax naan ki ànd ak ki ma àndal lu la neex laaj. billahi wallahi dama ko gis xam ni loola kii moo tax ñu koy wax ko ànd ak ki ñu àndal lu ko neex laaj mu wëg loolu maanaam dama lay xool rek yow sama xel dama lay xool di gis mag waxi mag yi mag ñooñu li ñu wax sëñ Cheikh Mbacke góor moo ko leen ñu ànd ak seex mi ngi la dab premier juin 2005 bi sëñ bi wàccee booba la booba la ñëpp war a maase topp sa ginnaaw ñëpp waaye nag suñu boob mooy dogal li muy dogal am na ñoo xam ne bi faw ñu am faw am fee am ñu dem fële léegi ñu ngi ànd ak sañ jiili ana kër sëñ jiili Mbàkke sëñ jiili Mbàkke mu sëñ Cheikh Mbàkke moom sëñ Cheikh Mbàkke Sall sëñ Mbàkke Sallum wala sëñ Bara la da daan def caaro yi ak waa Taïf caaro yi saa yi ñu amee manifestation mu nekk fa sëñ Bara bu amee kenn ku ñu war a tudd caaro yi léegi dootul dem daan ko ko yaa nga fa demal ma fa léegi kon moom dina fa nekk ci sa tur di fa liggéeyal sëñ Tuubaa soxna yi nee nañu naa leen wax ni na nga dégg ko waxoon naa la daaw nag sëñ bi loolu damay jóg tuuti sax sëñ bi il faut nga sot tuuti tuuti fa nga ñu kenn dabatuñu waaye nañu nekk ci kanamu ñëpp xale yii yow rek lañ gis nga fu mu nekk nii waa social ak waa organisation dañoo wax ni paas bi dafa nekk jamono nawet mën naa metti léegi nu ñuy def mooy comme paas bi su nekkoon junni ñu ni koy ñëw indi deux mille cinq cent bu dee quatre mille ñu ne indi ku nekk na indi na indi deux mille nga xam ne ñu léegi si des ñëpp ñoo dem ci ay njóogu faal ñoom ay sëriñ faal bàyyiwuñu kenn kuñ dem nga jox ak sës tuut ñu ñu transporté ci nit ñi loolu moo tax bus yi fees del macha allah soxna Oulimata Kandji nee na naa la wax ni tey ñoom ñi ngi arafat ñoom ñe jigéen ñee du yéen a ko wax yéen ne ah nee nañ nee na ñu ngi arafat nee na ndax arafat lañ fay am gëm nañ ñu tey nañ ko am fii fii sax lañ fiy am amul fen ndax sëñ Moussa lu mu wax fee ku ñu nangul la fii nag ku fi ñëw fanaan fi la ñu wax. Cheikh Moustapha du lambatu Cheikh Moustapha Bassirou Serigne Cheikh Dia Serigne Khadim Gueye ak mbooleem njabootug sëriñ bi Cheikh Moustapha yàlla na nga fi yàgg noo ngi lay siyaar ci turu Fissel Mbadane gépp te di la ñaanal yàlla mu yokk fan wi lool te mu ànd ak wér ànd ak dal ak tal yàlla na yàlla musal la ci cat musal la ci làmmiñ musal la ci bët bu aay musal na ci looleem luy yàqu lu waaye jéem jëme ci yow lu dut lu baax yàlla na ko ko suñ borom dëpp da nga mucc ca loola ak àndal mbàkke noo ngi lay siyaar te di la ndokkeel tey fetliwaat sunu diggante ak yow di la seereel ne giñ naa ci say jëm jii ne bëccëgu làmbaay ba bu taxawoon fii tey ku gëm sëriñ bi tey ñu rey la bii boppam séeréer de du ñibbi te waat naa ci sa jëm ji ne fii ma toog nga ne boppam séeréer laa soxla bii du ñibbi ak yi ma àndal séeréer yi mbaa daan yaa nga nële góor ak jigéen mag ak yow yow rek lañuy ñuy déglu ndax dang noo defal loo xam ne li kenn nattablu ko nu teg ci suñu bët ba mu fay ñëw ñeenti teen a nga fa yoo xam ne benn mu su ko naan daa wex xat ma ne ko mbàkke damaa bëgg nga ñaan xiiwal gi dox ndox mi wala ngaan ci biir dëkk bi ba kër gu ne am ba fii nga toog noonee ma ko waxe la ko suñu borom defee tournée ba ba mu matee ca Banjul la 30 keroog la ndox ma dugg si tey saango kër goo dugg naa nga ca biir di wala ngaan kon mbàkke li nu bëgg ci yow yal nañu ko suñ borom defal saa yi nu toogee fii ne téeméeri at yu dem yu ànd ak bëri dem rek atam ren mii bokku ci ba ca kanam la ñuy limbaale te dañoo bëgg saa yi ñu toogee fa ngir ceng saa yu ne bëri rek mën a dem. waxaluma kaw Kaolack rek damay wax képp koo xamante ni ba keroog ba Serigne Moustapha toogee fii ci kaw Serigne Baara toog Serigne Fallou toog mu xam la ni Ahibahil Khadim li nu seeti diinil xawim soxna Ajaratu Maam bu sa toog na xam ni maa ko sos ci laa nekk te maa ko digle te koo xam ni may sa bunt ci Serigne Touba moom laa la digal. kuy samay kuy sa bunt si Serigne Touba te digal la ko boo ci nekkee nekk sama digal boo ci nekkul la nga nekk yaa ci nekk waaye man lii laa nekk ci laa digle yaa ma ko waxoon yaa ñu ko waxoon fii ci kaw kon ñooñu laay waxal waaw waa ahibaawul xadim li nu sa diinul xayim ñoon laa fiy waxal waaye nag bay ci sa wequ tàng section Kaolack fa la ma yàlla boole te ma nangu ko te ànd ak ñoom ci àndin wu rafet ji taal Touré moo ko jiite mooy président section ba mi ngi nii toog sëñ Tuubaa moo wax ne taalib yëpp la doon waxal taalib yëpp adduna ko maanaam bi adduna sosoo bi sëñ Tuubaa ñëwee ba adduna tukki am message la joxe boo xam ne taalib yëpp la ko boole te mooy la tafaalu shay'an bi gayri izni fal idnu shartun fi qabuli sha'ni sëñ Tuubaa nee na yéen taalib yi maa ngi leen digal lu ngeen di defat na ngeen ko diglu ndigal bañ jox leen ndigal ngeen ne ndax dafa bokk ci sarti ñu nangul la li ngay liggéey nga nekk ba am digal dafa bokk ci sart ñu nangul la nga nekk ba am digal loolu sëñ Tuubaa ko wax loolu nag nee na kon na seen xel dal bu baax ndax liggéey bii nee na ndigala ma wax na ko waxate ko waxate ko kon nee na ndigal lii mu digle di ahibbaul xadim li nusrati diini la xawit tam yëg bu wér ni kenn ku ne yaa ngi koy damm sa bopp la nga la nga man ak la nga mënul yaa ngi ko ciy def bu leen sikk sàkk ci ne day kenn ku ne boo taayalee sa loxo sa rëddi baaraam yi ni mu la leere wallaahi asim noonu la ko mbir yooyu lu gën a leer mbir yooyu la ko gën leer li nga nekk ci liggéey ak foo mën a ne ak loo sori sori ak loo ruqi ruqi boo nee ci ndigal li bu baax te dox ci te xam ne mi ngi yeesalaat ndigal góor ak jigéen mag ak ndaw bayuñu kenn gis na jëf yi bu baax a baax leneen la ca des nag nee na dañuy fàttali rek fàttali goo xëy neen ci boppam la ko tàmbalee ndax dañuy faral di wax ne lépp loo xam ne moom mi digle na ko nun taalibe mi kenn ku nekk ci xoolal kenn ku ne xoolal loo lu phrase boo dégg loo dégg Cheikh Moussa wax rek fi nga toog bala ngaa dem xoolal def na ko bu yàgg te ma nga ci te moo la ci nag loolu nag mooy seexu murab bi dégg dëgg seexu murab joxuñu yoon wa ne ma nga ne wëlbatiku waaye daf caa dox nekk ca kon lépp lu mu digle ma nga ci te moonu man ca kon boppam la ci jiital kon neex naa àndal ndax ku xam yoon wi te ñeme ci tey dem bu nee la kaay ma yóbbaale la war nga sant baax a te moom xam na yoon wi ñeme na ci te mi ngi dem itam te kenn nu mënta téye mu àgg fa mu jëm kon nee na mi ngi leen di digal di digal képp kuy dégg suñu kàddu ñu sax ci jaamu yàlla ndax jaamu yàlla kat doon la loo xam ne mënu fi indi mënu fi bàyyi bëgg na ma fonk wax naa ba tey ci ay mu wax loo ko ne ku bëgg doon ab dànn ci ak dëkkam na nga fonk jamono woyeful ko tuutal ko gannaawalu ko ndax loolu ci sëñ Tuba amee li amee lépp te la ko Cheikh Moussa amee te la ko Serigne Cheikh amee te la ko Serigne Mohamed amee ñoom ñooñee ëmb ba ñu yoroon ñu tax a teg ci loxoom kon ëmb boobee. dara du ko rax ñu ñëpp xam loolu sax ci jàmm yàlla bu baax dimbalante sëñ bi dimbalante gi ñor na ko lool xam na ne ñoo ko ci de waaye nee nañ nañ ko gën a fonkat buñ delloo ci mbooloo yi ku mat a dimbali ku ne nañ ko dimbali ca ca ca fan na gañ ko war a dimbalee ak la mu laaj ci wàllu ndimbal nee na nag lu xam ne kenn ku nekk ci noonu bi ngay gane adduna suñu borom mooy na la juróomi mbir yoo xam ne dañ laa gàttal waaye nag mu toftal ci juróomi mbir yoo xam ne ñoo lay gunge juróomi mbir yi di gàttal ni nga leen di bàyyee xel na na yi ne ñoo topp ci gannaaw yooyu nag di la ba ca jiitu mooy dalay jox kattan dalay def ndaw jox ñeenteel ba mu mel fiir maanaam temps boo mën a defe dara juróomeel ba sa bakkan bii mu may nu mu dund ne la aj suñu borom ne la juróom yi ni yoo xam mën nañ soo ma jox sallallahu alayhi wa nag dikkaat ci hadis andi juróom yooyu nag wax ne leen koy bàyyi xel ndax bu ci ne dara da ca jox sëñ Tuubaa wax ko ca tasawdu sixa wax tani mu xamsan xubayl alxamsi kama bihi amara xayrul insi juróom yaa mu wax ne sa ndaw gi la yàlla jox kattan gii mënul jox comme ni ko Cheikh Moussa Diop waxee léegi daal di bajango waa ne noo ngi amul wér noo ngi no nga am kattan na nga fexe ba kattan googu la suñu jox ak sa ndaw gi nanga xam ne ak ak mag a ngi ñëw ak mag ak mag gata ngi ñëw te boobaa la nga mën a duutoo ko man kon kon tawféex yi doonu ndaw am nga ko waaye li koy gunge mooy ak mag nga tënk ñëw te la nga mënoon ci ndaw dootoo ko man bi ngay doone mag kon a nga gaaw góor góorlu ci jamono yi la saa mën joxe ak ndaw loolu ci mën ci lu baax balaa ak mag yi beneen bi ci def mooy wér gi la suñu borom jox da koo bootal ak wéré bi ndax ku ne xam na ne wér ak wéré bi boo demee ci hôpital yi da ngay jàpp ne kenn kenn jóg kon yaar yooyu am kon boo sëppee say tànk ni alhamdulilah daal di yëg yëgoo dara gaawal loo mën ci lu baax rek nga gaaw def ko ci wiir googee te xam ne suñu borom da koy am la te ba ko soobee mu teg ci ak wér bi te xamu koy def te yàlla daa bari bi ci des mooy koom-koom mi la suñu borom jox mu toll ak mën a dox fekk caa jot yéen yow mooy nga dimbali ci boo ci mën a dimbali def ca lu baax ndax suñu borom ba ko soobee mu fabaat loola ba say loxo ci nekk ndax loolu coobareem te loolu ñun ñëpp teg nañ suñu bët xam ne situation meloon na noo xam lu yéeme yéeme la mu tolloon foo waaye dama dama dama def bañ naan waaye day coobare yàlla li nga xam ne moo naan bu ko neexee mu di indi kon bu nee la bi ci des mooy péex ñim la may nga am as njot mën a jóg dem mën a wax mën a tëdd mën a lépp bu boobaa fii boobu ak temps boobu gaaw a buur buur ci temps bi ba def ci li nga def balaa xat-xat yi ñëw balaa xat-xat yi ñëw xat-xat yi jamono ngi fi yu bari yoo xam ne mën naa dem ba tënk la bala nga bëgg a def lépp doo ko mën a def kon foo amee occasion lu néew néew rek ci am piir rek gaawal rek propre loolu ci def ca lañ jox def ndax sëñ Tuubaa kat daa mos dajale saaba yi ne leen ngeen di waajale bis pénc am ca ñëw ni bëri ba ko noonu day mbàcc nañ koy waajale mooy saa bu ñu xëyee jàppale duñu yem suñu yem la jàppale duñu fanaan suñu fanaanee jàppale duñu xëy mu ne bismillah mat na ko rek waaye man ahmadu ni ma koy waajale wóote naa ak yéen ni ngeen koy waajale man ahmadu ni ma koy waajale mooy noy yi bu dugg rek ma jàppale bu génnaat ma gaaw loo ci man def balaa bu jën yi di sama njëriñ su xoolal boo ko far noy yi bu dugg damay jàppale bu génnaat ma gaaw lu ma ci mën ci diggante boobu def ko moom diggante noyyi ak morom ja ci la daan liggéeyal yàlla yàlla nañu ko yàlla fay xëyati jësa kon sëñ bi neen loolu moo tax waxtu bi lu am solo waaye dundit mi ngi fi te am na la ci topp mooy adduna daa am fu mu yem te ku nekk adduna rek saabara xam na fu mu la yàlla faxal bu fa accès bu boobaa bu la soxlaa daf lay fab kon nag nekk di ci adduna di dund na ko def moom itam jumtukaay boo xam ne da nga ci fas kon yii yu am solo la yoo xam ne yu mat a bàyyi xel la sallallahu alayhi wa sallam am na ko Sëriñ Tuubaa am na ko téere bi ñu wax ne saw di sixaar di ko dénk ndaw yi di ko dénk jigéen ñi kon nag nan maas taloo lépp boo boo ko déggee rek mooy kon nag nee na nan nan nan nan nan góorgóorluwaat fekk war tax saay bëggante soppante wóolante doyloon te sax li mu digal te yem ci te li day yem sëñ bi dëgëlee na ne digg ci loo xam ne kenn du ko xam fi ci àdduna ngir des ko ko nit ñi xamoon teel bi yëpp xam ko jullit ñëpp xam kon tey li dalee ba Ndakaaru waaw àll bi sax nit ñi dañuy na bu subaa nañ ko waajal ci xasaay bi ci alquran ñu daj fii ànd ko ak moom sëñ bi du saa dañu daal digle alquran daanaka digle xasida yoo xam ne sëñ bi ne mi ngi ko fàttali muy jës ko xoloo Mawâhibou Nafi' Muqaddamatul Amdâh xasida ak miimiya Cheikh Moustapha fii daa toog teg ko ci kanamam di ko jàng moog sëñ bi Samba ak ñu daa àndal jumaa ji ñeenti xibla yi genn xibla ga ci penk waaye jësu moo fa daa toog di jàng wetu ndeyjoor ko waa Mawâhibou nekk wetu sowu gi waa Muqaddamaat nekk wetu wetu yii di wetu gànnaar waa miimiya nekk waa alxuraan ji mu séddal yi ci biir jumaa ji ci biir barabu sëñ Tuubaa ak mihrab ay jullee ñu ne ci kaamil ba bët set bu ñu noddee ba julli Cheikh Moussa jàng discours ba yow yi da bu ma saan yewee nag danaa wax ne loolu yi ñuy wax saabu day ni mel nu ko rob la bis bii mel ci bàkkaar ku fanaan ba bët set bu la neexee bay bu yëlu nga xam ne sën nga wecc ay bàkkaar loolu rek jar nañu ci dëkk kon nee nañ ko fonkaat ci noonu ci alxuraan bi fonk ko ci fonk ko ci xasida yi dundal guddi gi ba bët set ndax gaa yu xam ne Cheikh Moussa wax na ne gaa yu baax yi doon gunge sëñ Touba al bi mu wàccee liggéey ci njaar 1927 ñu di ko andi nga xam ne ñoo ko gunge ba ci jumaa ji bu pis boobee delsee ñoom ñooñu dañuy ñëwaat ci guddi solo ci mbedd yi solo ci kër yi képp ku mu dajal defal la tawfiq defal yërmaande di wax ñu tàqali ko ak yow mukk loolu nag lu gën a wér la sëñ Moussa wax bu suba la te suba ci guddi la ñuy kon kenn ku nekk na nga waajal sa bopp na nga waajal sa bopp bu baax a baax mi ngi sant ñëpp nag di leen gërëm di xam ne seen pas-pas ci moom yéen sax xamu leen dañuy jéem rek waaye moom mi moo xam dëgg-dëgg pas-pas yi mu duyeel moom moo ko waaye rek ni mu ko faral di waxee ndax xel yëpp dal rek ndax sëñ Tuubaa daa bis ci njaareem mu toog ba yàgg mu woo ay mag ñu waxal ñoom ba yeewee leen mu woo kenn ci bëgg néeg yi ne waxal mbooloo mi ne la suba ak ginnaaw suba fekk fan sàngam fii mu bu fi kenn jàll kooku dab nit ñi nee fii moom suba ak la ci topp la topp na ngeen toog déglu ko waaye fii bu fi kenn jaare nit ñi xëy ñëwaat bi déglu ñu wax mu ne ana lu doon ñu ne ko ah mbooloo mi ñëw xanaa dem li ma leen wax ñu ne ah mu ne dellu wax leen ne leen dama leen leen boobu fi kenn fekk ñu dellu waxaat ne loolu nit ñi jóg tëkku saan jot ñu del si wax mu génnaat waxaat loolu kenn ci mag ñu baax dafa am mbagg ah moom de ñu ngi nii rek xanaa dëgg la rek wax na ne que bi ñu waxee loolu sëñ bi def na ko oh, mu yëkkati ñaar loxo ba ci kaw mu ràbbali baaraam yi danañ alhamdulilahi rabbil alamin ndax xam nga suñu borom maral na maa mbir yi bu mënuñ ma bay rek waaye mu loolee mooy yii suñ nan xam ne suñu borom maral na mu ak moom la ko bay te duñ bay loolee moo fi nekk ba léegi alhamdulilahi rabbil alamin suñu borom kat maral na maa mbir yi moos ba ndax mënatuñ ma bay rek te loolu da ngeen defee ne foofu la yem mooy dox ba léegi ku ci yàlla dugal war ngaa sant yàlla loolu waa fi nekk ba léegi kon na ñëpp maa fi ñaan Cheikh Moustapha Mohamed nii na gudd fan gudd fan boo xam ne bu kéemaay la bu kenn mu sëgg billaay buñ ko ñaanee suñu borom def buñ ko ñaanee suñu borom def ko de aw ba jur may si fakk na ko ñëpp def mu seen wér gën a mag ci mooy na ko saa borom bay ba mu soxla te wér wér ba nag bëgg léegi lépp mu lëggee te nun nag moom nan ko bàyyi suñu bopp rek nan ko bàyyi suñu bopp rek kenn koy day sàllaaw fa nga nekk la war ci yow ci sa mbuus dana ko duy moom fees boo doon amul benn wér na nekk ci ndigal li te bàyyi ko ak suñu bopp xam naa daal nee na sant na ñëpp gërëm na ñëpp soxna yi nag danaa ci dël siwaat ndax day faral di wax léeg-léeg ci yu bari ne gis na ne ñaare fi fi mbooloo siyaaree bisu tey bii yu dul bisu tey bi li ci ëpp jëwrin yi daañu ko seere daañu ko seere seere su ci soxna yi jigéen kon nag loolu na ngeen xam ne dégg na ko bu baax mu ngi leen di ñaanal yéen itam ñaan xaas kenn ku ne fu muy liggéeyal yàlla yàlla ko sama borom defal barke barke bu yaatu defal ko fa xéewal defal ko ndaw defal ko mag ñi defal ko képp koo xam ne ba lu baax mi ngi ñaanal tam nag jullit yëpp nag nii mu nu ñaanal nag na ñëpp xam ne jullit yëpp la ñaan ñëpp la fàkkul nun nag dan caaraw ndax noo noo nekk fi moom waaye kepparu lislaam yëpp la dara nee na mi ngi ñaanal jullit yëpp kon na ñëpp maase taalal seeni loxo te taatal ndab yi te xam ne insha allahu dana ko duy ba mu fees dell ndax sëñ Tuubaa moo waxoon ne zuru fi mahan wajjatuha xablu lin nabi wa bi ma faaxal muna ba mu ne moom waaw góor ne ma taalal sa ndab ba ma ko taalalee duy na ko ba muy fànn kon fi fu waay nekk taalalal solo te fasaaleel koo am ku nekk ci kaw suuf ak ku ne ci biir suuf ñoo ci ram ñoo ci yem na ñëpp paas taalal loxo yi mu su suñu aajo faj ñun ñëpp ba suba ak jàmm nag li mu wax nu maas dellusiwaat ci bar bi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu bismillah